baax ma jigéen. waaw hmm. euh, tey xam naa dañuy jël benn rek après dem jëli ku ñuy wax Ousseynou Fall ay mbokk lañ yoo xam ne jotoon nañ leen dalal ci rajo bi ci ay jamono ci noo ko dundee. Hmm. ay homme de tenue lañ woon nag yoo xam ne yàgg nañoo sol tenue di sonnal Sénégal. Hmm. tey lii booy def ak manifestant yi ay jamono ba ñu solee tenue daanañ ko def maanaam défendre seen réew ci ñu ñu jàpp ni dañuy yàq wala dañuy manifester. yàgg ku la défendre Sénégal ci ay frontières ak yeneen yu tey nag am nañ ay jafe-jafe dinañ ci ñëw léegi waaye ba lañu cee ñëw rek ñu yóbbaale benn euh, ñamali muy jaloog mm. euh, bi euh, barki démb discuter nañ ci li nga xam ni moom mooy troisième mandat bi biñ ci discuter nag ba xëccoo bi bari waa société civile ba fa teewoon ñoom d'accord nañu ñu yóbbu ko ci conseil constitutionnel maanaam daal ñu àtte leen foofu foofule ñoom loolu lañ d'accord bu dee nag lu jëm ci Khalifa ak Karim nee nañu dinañ modifier article vingt-neuf bi nga xam ni moo doon galgal gaa yooyu pour ñu modifier ko mën leen dugal ci grâce bi bi nga xam ne mooy grâce euh, présidentielle bi la ca doy waar nag nee nañu tudd ñu fa turu Ousmane Sonko ci euh, mbir ya waaye daal société civile moom ci wax ji ba mu daanoo ñoom tudd nañ fa turu Ousmane Sonko daan ne nañ ko bàyyi mu bokk waaye daal ci bi nga xam ne moo galgal gaa yi daal Karim ak Khalifa bu ñu yeboo ñu tàcc ndax bu ñu ko modifier incha allah daañu leen gracier ñu bokk mm. waaw mais man lu à chaque fois bu ñu doon wax mbir yi dangay ngay gis suñu xëyee ci journaux yi dafay wax ni moom dafa bëgg ñu atte ubbiwaat dossier bi atte ko ba mu leen nañu que ni moom deful donc su su daan wax loolu tey mu bëgg nangu grâce bi mooy que ni moom saay su ko waxaan rek ah, nit yi am nuñ ci waxee rek mooy que ni. moom li mu bëggoon mooy ñu gracier ko pour mu mën a ñëwaat te nit nag say waxi démb ak say waxi tey moom boo dëgg yàlla bu ñu wuutee te bu ñu demee démb maa ngi la koy wax son bu ne la su ñu demee léegi ba euh, nekk candidat euh, nga déposer candidat pour ñu nangul la ko day dépendre ci président de la république mhm. loolu mooy que ni nag problème am na te aussi mm. bu ñu bëggee mbir yi dañ daal di koy tuxalaat ca conseil constitutionnel certes moom mooy valider wala ñàkk bañ a valider ak nit ku déposer moom mooy xool ndax yow war nga bokk wala waroo mën a bokk te suñu ministre de la justice bi lu yàggul dara daf ne euh, pour mm, président mhm. Sall mën a bokk ci élection yi dafa dañu dañu war a jaay lu tolloog ci deux millions de cartes tey jii nii ñu bëgg a ñëw hmm. ne affaire bi dañ koy yóbbu conseil bu ñu toogaatee encore ñuy wax moralement wak physiquement wak nangam ak ay wax yoo xamante ni nii dara méngoowu ci mais li ñu gis démb c'est Paris aussi mel na ni ñoom li ñu bëgg mooy président bi dina dina dafa dafa war a a bokkaat son yi boobu waaw waaw ci dialogue bi de gaañaa ngi cee ñu waxtaan waa ngay woy waaw mais waa xalifa yi wedd nañ te nee nañ nee nañ nee nañ loolu li journal bi bind. muy du dëkk waxuñu ko demee moo de. ah oui waaw maa ngi doon déglu kenn tey. li journal wax du dëkk nee na li journal bi bind. Euh, moom koy cité na ko sax nommément nee na li ko l'observateur bindee mbir yi demee noonu. kon lu mu jubbi ci loolu moom la. ah ma a jaaxal lan mooy ndeyu léegi journaux yi dañuy xëy bind rek te saa yi ñu xëy ña fa nekkoon ñoom bu ñu génnee weddi la nga xam ni moom la ñu bind. mais loolu de ko nañu xoolaat nag euh, métier mi bu baax a baax parce que tamit. Euh, ay gars yi xalifa yi kan moo weddi ci ñoom bu ñu demee kenn la ci ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ki ok expliqué na. Mm-hmm. Euh, wane ni ñoom ànduñu ci nee nañ seen position démb. Mm-hmm. ci troisième mandat fa lañ ne. waaw xalifa moom doon na ko défendre. donc nee nañ fañ nekkoon foofu la ñu ne. Mm-hmm. arrière ñu ci lu doy ni kii. Mhm. donc loolu tamit. mais le fait que société civile nañ ko yóbbu ci conseil bi euh, mbirum troisième mandat bi nag. waa xam nga yooyu moom bu loolu moom wax dëgg fa yàlla xam nga mbirum troisième mandat man di ci wax sax laa bëggut. Ah. parce que dafa war ta ne dañ cee war ta wax. waaw mais dafa am fu réew mi toll maanaam réew mi dafa war a euh, avancer. tey jii dégg naa ci euh, ku ci mel ni aadama fay sax wax na ko. Adama Faye ba waaw Adama Faye mooy goro président Macky Sall. Ah. Adama Faye nee na. Hmm. Euh, président amul droit di def ñetteelu mandat amul sañ waruta amul droit bi te nag ko nit ñi wax nee na nag kilifa diine yi jóg wax ko ko waaw moom ni ko waxee moom nee kilifa diine yi jóg wax ko ko ah, parce que nee na kilifa diine bu nga ko ci waxut hmm. tamit day mel ni war nga diine ji loolu la wax parce que dafa ah. wër fépp waxoon ni du def du def troisième bi donc Adama Faye dégg naa ko tey vraiment mu wax wax joo xamante ni wax ju am solo xam nga nit man jàpp naa ne Adama Faye ci ñi gën a bëgg président la bokk. Hmm. waaw way parce que nit ki boo ko bëggee da nga koy dimbali. d'accord bul ànd ci ñi nga xam ne ñi ngi koy puus ci loo xamante ni bii. Hmm. ñoom ku ci doonoon tey. jàpp naa ne sa mbokk wala sa wuyjur dëgg xawloo say intérêt. Hmm. doo ko def loo lii nga ko lii nga bëgg mu def. d'accord waaw. donc na na mbir yi loolu parce que sa intérêt personnel kese moo tax. wax te fàttali na ni euh, Abdou Diouf ni mu fi jógee. bi mu fi jógee daal ne Ablaye Wade ni ab Diouf def. Mhm. loolu ñu am alternance bu rafet. daal ne Ablaye Wade tamit ni mu def ñu am alternance bu rafet mais donte sax Ablaye tamit demoon na sax du wuti ñetteelu mandat. aywa yaa ngi dégg mais président Macky Sall moom it loolu daf ñu ko daf ko amee réew mi. Mhm. d'accord pour nit ñi. Euh, mën mu organiser ay élection yu mu dul bokk nga xam ni première fois lu mel noonu mi ngi soog a am ci réew mi